dafa am distance bu am ci diggante ñi nga xam ni ñooy def politique ak askan wi ba nga xam ni askan wi gisatul boppam ci politique soo xoolee référendum bu mujj bi wane na ko ndax ñi ëpp ci askan wi damuñu voté loolu day wane ni gisuñu seen bopp ci politique ñun JDS ñu jàpp ni politique niñ koy doxale ci réew mi dañ ko war a changer dañ ko war a soppi ndaxte politique warul nekk loo xam ni rek pour wut poste boo toog wala loo def ci sa poste wala compte bancaire politique li ko war a tax a jóg mooy yëngu-yëngu ngir ñu tabax réew mi ngir ñu tabax askan wi pour ñu dimbali néew gi doole gi. loolu nga xam ne moo taxoon a jóg démb politique loolu lañu bëgg ñun waa JDS xëcc askan wi ñu dellu ci loolu ndax bu ñu delloo ci loolu yaakaar dina tabbiwaat ci réew mi bu yaakaar tabbiwaatee ci réew mi ndaw ñi dinañ mën a toog ci réew mi ñun ndaw ñi ñu tabax Sénégal ak ëllëgu Sénégal. ay jafe-jafe amoon na waaye ñàkkul ne am na ay waxtaan ba dal dellu si waat na ci kër gi loolu mooy wane ni tey jii suñu manifestation bi ñu may ñu ko ñu def ko ci maison du parti loolu tekkiwul ni ñun JDS dañoo daw suñu responsabilité. saa suñu jàppee ne am nañ lu ñu wax ci réew mi dinañ ci addu wane nañ ko démb wane ko tey e incha allah bu subaat bu ñu amee lu ñu addu ci réew mi dinañ ko wax. ñun seetal saal du suñu problème dëgg yàlla suñu ambition weesal na c'est nous voulons de la JDS le premier mouvement politique de jeunesse du pays suñuy ambition mooy ñu def JDS bànqaasu mouvement politique gu ndaw bi ëpp doole ci réew mi fan yii di ñëw dinañ lancer benn plateforme JDS 100000 adhérents fii ak JDS mën a mobiliser cent mille adhérents kon suñu ambition du remplir salle bi. parti bi def na congrès fal na Ousmane Tanor ba moment bii ñuy wax moom moo jiite parti bi kon benn problème amul li am rek mooy ni nit ñi waxtaan. et képp ku ñu war a jox euh, gëddam ñu jox la ko nit ñi waxtaan ñi xam ni wuute xalaat dina am waaye li ñu boole mooy parti socialiste ñi liggéey nag ngir parti bi jëlaat pouvoir bi.